alhamdulilah rabil aalamiin wasalaatu wasalaam ala sayyidi almursaliin nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa ashaabihi ajmaïn amma baad mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk suñu bopp ragal yàlla ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem gannaaw bu lu jàllee diine lislaam dafa doon diine joo xam ne ju yaatu la yoo xam ne lépp lu jullit yi di du dund lépp loo xam ne jullit yi ñi ngi koy dund muy jeexital ci seeni wax ak seeni jëf ak seeni jikko rek am na àtte bu ca lislaam def yooyu yi nga xam ne nag dañ koo nattoo waa jamono te muy jeexital ci seeni wax ak seeni seeni jikko daf caa bokk jumtuwaay bii ñuy wax téléphone téléphone xéewal la koo xam ne nit ki mën na cee jariñu lool mën na koo dimbali lool ci garde waxtoom mën na koo dimbali lool ci garde alalam léeg-léeg foo xam ne dafa waroon a paas dem fa muy tukki bu sori boo xam ne dana ci ñàkk alal ñàkk ci coono ñàkk ci waxtu mën na caa faj aajoom ci loo xam ne du mat benn minute kon kooku xéewal la goo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko tàggatal nit waaye nag loolu ci kaw su fekkee nit ki jariñoo na ci la nga xam ne mooy la tax jumtuwaay boobu jóg waaye nag li muy doon doon xéewal mën naa wëlbatiku musiba ak mbugal ci kaw nit ki nga xam ne moo ko moom su fekkee jëfandikoowu ko ci li nga xam ne mooy xéewal sëriñ bi toogal toogal kon noonu la mbirum téléphone deme moo tax boroom xam-xami lislaam yi nga xam ne ñooy gëstu li xew ci jamono te xewul woon bu yàgg jox nañ ko yitte am na boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax Cheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah bind na téere ko ne adabul haatif haatif la ko tudde maanaam teggiini téléphone xëy na jamono yam koy bind sax fitna ji àggagul woon fii mu àgg ndax jamono yooyu li ñuy tuddee téléphone portable tasaaroogul nii mu tasaaroo wala sax bu fekkee amoon na it néew na lool moo tax lu ëpp ca lam ca wax daanaka lam ca wax lépp sax lu aju ci téléphone bi nga xam ne dañ koy fixé mu nekk ci kër gi ca la jëm loolu moo tax lii nuy wax dafay jëm nag ci téléphone bi nga xam ne mooy téléphone portaabal ndax la chaque ne téléphone portable ni ëpp njariñ ëpp ay service ak i man-man yu ci nekk nim ko ëpp téléphone ba nekk ca kër ga noonu la ko ëpp itam ay lor su fekkee ne nit ki jëriñoowu ko ci la ko tax a jóg kon loolu moo tax dana jaadu ci teggiini jawaal maanaam teggiini téléphone portaabal mu jaadu jullit yi fàttalante ci ci jotaay boo xam ne bu mel nii la kon am na ay mbir yoo xam ne képp kuy jëfandikoo jumtuwaay boobu war nga ko bàyyi xel ba ca jëkk mooy al iqtisaadu fi l mukaalamaat xam ne jëmmi téléphone boobu toog di waxtaan taxu koo jóg waaye wax itte mu jeex rek moo ko tax a jóg kon nit ki ngir mu bañ a lor boppam ci wàllu wér-gi-yaramam bañ a keneen ka muy woo itam jaadu na mu gàttal ay waxam wattandiku yu baree bari yoo xam ne su daje woon ak nit ki di waxtaan ak moom da ciy dugg mu xam ne daje wut ak moom di waxtaan ak moom léeg leen nga gis koo xam ne balaa wax itteem lu nekk dana ko laaj waa kër gaag nu seen biir demeeg sa wér-gi-yaram ak si lenn lu nekk mu laaj ko loo ne mel ni ku dajeeg nit ki fàtte ne fi muy waxee ak moom mbir la moo xam ne wax ja dafa war a gàtt ndax wér gi yaram nga ci boppam daf koo laaj ndax kenn ku nekk xam ne téléphone portable dafay lor nit ki nga xam ne dafay bari lu mu koy jëfandikoo da koy lor ci wàllu servo maanaam biir yuuram am na jeex yu mu ciy def am jeex jeexit yu muy def ci xolam loolu ñuy gëstu ci bunt boobu te ña koy liggéey sax bind nañ ci ay rapport yoo xam ne dañ koo leeral ba mu leer nañ kon toog di waxtaan di wéy rek taxu koo jóg waaye wax soxla mu jeex rek moo ko tax a jóg ni nga xamee ne di ko jëfandikoo lu bari noonu lay di ko jëfandikoo lu yàgg maanaam téléphone rek toog di wax fukki minute ñaar fukki minute ngay waxtaan di dem noonu muy lore di ko jëfandikoo lu bari itam noonu lay lore woote bu nes tuuti nga woote waat bu nes tuuti nga woote waat bu nes tuuti nga woote waat loolu itam lor ji noonu la bare dafa am ci nit ñi ñoo xam ne dañoo yaakaar ne téléphone portable pour wéttaliku la moo tax Cheikh Bakar Abou Zayd mu day wax donte ci téléphone fixe tax muy wax sax mu ne na nga wattandiku feebar dal la bu ñuy tudd feebaru jokkoo ci téléphone mais dafa am ñoo xam ne dafa dem ba àgg ci ñoom foo xam ne feebar la ci ñoom nee na kim feebar boobu dal nee da ngay gis fu mu yëkkatee boppam ci ngegenaay la rek la muy jëkk a làmb mooy téléphone ba bu ko làmbee daal di jël euh, fa mu bind turi nit ña ña muy woo di xool tour par tour di woote mu ne bu jógee ci kër ma ngay jàll ci geneen kër bu jógee ci bureau ma ngay jàll ca beneen te amul benn jubluwaay lu dul kenn ku nekk mu nuyu la laaj la na nga def fekk maru téléphone wam fanaane moom la xëy di ko faj nee nag ku mel noonu nag ñaanal ko jàmm rek lan ci man yàlla na ko yàlla saafara ne loolu lan ci man ak itam di ko laabiire loolu yi ko dal mu fexe ba bàyyi ko te soppi ko kon loolu mooy tomb bu njëkk bi ñaareel bi wattandiku itam lor ki nga xam ne moom ngay woo léeg-léeg am ci ñoo xam ne lor jiñ lay lor mooy woo la ne la ndax xam nga ma ndax xam nga ma boo ko xamul mu daal di tàmbali di la yedd wan la ne lu tax lu tax xamoo ko di ci yéemu te xam ne ki muy waxal ak itam di yéemu lu tax sama numéro defu ko ci portable am ba ma woo ko xaw xaw ma xaw ma yooyu day diis ci kooku kooku sonal kële la ndax amaana kii ngay woo amul jotu loolu amaana itam doon bokkul ci ñi nga xam ne sax dañuy dugal ay numéro ci seen portable far am na ci nit ñi ñoo xam ne noonu la seen mbir mel mën naa fekk itam portable am fees na ak i numéro sa bokkul ci ya ko feesal su ko defee mënu laa woo kon li gën a wóor mooy yow mi woote ngir mbir mi gën a gàtt tegu ci yoon te lor bañ cee am xamleel sa bopp te xam ne ki fëgg téléphonum nit di ko woo wuutewul ak ki ñëw ci bunt kërum nit fëgg ko ki soxla nit ba ci buntu këram fëgg ko diisul fëgg bunt ba noppi naan kooku ku ne ci biir waaye yow mi ne ci bitti soxla kooku yaa war a wax yow yaay kan <coughs> moo tax jaabir ibnu abdullahi radiallahu taala anhuma daf ne benn bis dama ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw ci bitti asalaamaaleykum wa rahmatullah ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ma kooku kan la nee na mane ko mana nee na mu ne mana mana daal di koy naqarlu loolu metti kon lam bëgg mooy soo ne mana nga ne mën a diw wax sawut lu bañ xam kooku kan la waaye manay kese rek du doy kon yow miy woote saa bu boroom téléphone bi wuyoo nee ko mën a diw sàngam su fekkee ne soxla nga mu xam la soo soxlawut mu xam la nag mën ngaa wax sox si say soxla dem moom bu la soxlawut a xam lay soxla sa dana ko wax mu jeex kenn ku nekk dem ñetteel ba sàmmoonteeg situation bi nga xam ne ki ngay woo moom lay dund ndax su loolu amut rek mën ngaa tuumaal nit ci loo xam ne du jikkoom ki nga woo mu bañ laa wuyu wala mu gàttal wax ji mën naa doon ku feebar mën naa doon koo xam ne dafa sonn ba xamatul fu mu nekk muy noppalu loola tax wuyuwu la wala bi mu la wuyoo loola tax wax ji gàtt wala mu nekk ci palaas boo xam ne mënee su nit ci téléphone mën naa ne ci biir jàkka mën naa nekk ci armeel mën naa nekk ci biiru julli mën naa nekk biiru conférence biir waxtaanu diine wala mu nekk ci biiru réunion wala am ndaje moo xam ne mënu faa dagg la muy def di woo ab téléphone moo tax lay teggiin ya mooy nañuy jëfandikoo ci bunt lu sharia jàngale ci ku fëgg bunt mooy boo fëggee bunt bi taxaw tuuti fëggaat taxaw tuuti fëggaat kenn wuyu la muy ñetti yoon yemal foofa kon la doon teggiin ya mooy téléphone bi boo yëkkatee mu fëgg ñetti yoon kenn wuyu la arrêteel booba ba ca kanam nga door a woote waat xam ne am na gàllankoor bu tax moom moomee wuyu la loolu moo tax kañuy wooy itam dana jaadu mu góorgóorlu ba saa buy tàmbalee di téléphoné mu nar a balaa ñett yoon yee mat war naa jéema góor góorgóorlu ba wuyu moom itam waaye fu ñett yoon yi mate rek la jaadu woon diggante jullit yi mooy kay woote dana daal di xam ni kii am na lu tax mënta wuyu mu daal di arrêté te su arrêté nag mu bañ a gaaw a woote waat xaar ba mu wër ko ne loola war naa weesu su fekkee ne ci julli la nekkoon julli ga war naa jeex su fekkee ne ci armeel la nekkoon war na faa jóge su fekkee ne daa nekkoon ci waxtaanu diine xëy na war na faa jógee kon noonu faaw mu bàyyi ko xel léeg-léeg nag dafa am nit ñoo xam ne ñooy ëpp li ñuy loru ci loolu rawatina suñ mbokk yi nga xam ne ñoom lañ jiiñ boroomi xam-xam ba nit ñi di leen woo ba nit ñi di leen woo ngir seen masalay diine ñooñu dañuy loroo lor lu bare bari ndax ñu bari ci ñi leen di woo nattalewuñ ba xam situation bi nga xam ne ñooñu ñu ngi koy dund ci xeetu coono seen diggante ak téléphone ba tax na su am na ci ñooñu suñ la woo woon sax daal di wëli lay jot yow ci sa bopp dañu daal di jàpp ne ak ah, kii de léegi moom amatu soxla ci nit ñi day teg téléphone fële wala boo wootee sax keneen a lay wuyu far léegi moom mu yóotu la fekk xamuñu situation ba dëgg dëgg na muy demee ci joxe ci misaal rek benn bés benn conférence bu nekk fii ci jàkka ji bàyyi nañ téléphone bi fii ci bureau bi diggante tàkkusaan ak timis bi ma dikkee quatre-vingt-cinq appel laa fi fekk diggante tàkkusaan ak timis appel yoo xam ne ñu dañ doon xaar ku leen ku leen tontu quatre-vingt-cinq appel ci diggante takkusaan ak timis nga xam ne takkusaan ak timis du ëpp mukk ñaari waxtu ak genn du ñaari waxtu ak genn wàll maanaam téeméeri minute ak juróom fukk du ko ëpp soo jëloon ne quatre-vingt-cinq appel benn appel bu nekk day jël ñaari minute te néew na ab appel di jël ñaari minute waaye soo ne woon ñaari minute lay jël rek kooku ñetti waxtu yu tegal la maanaam kon nit ka day toog gannaaw timis di wuyu téléphone bi bañ julli timis mu continuer di wuyu su ko defee nag su fekkee nit ki dem na bay dundu situation bu mel noonu te suñ mbokk yi la chaque ne ñuy jiima góorgóorlu ñëpp mbokk yi rafet njort ci ñoom ci seen wàllu diine lu mel noonu la dund ci wàllu téléphone yi su ko defee mbokk yi loolu ñu bàyyi xel am na mbokk moo xam ne fan yi daf ma woo ci téléphone mu wuyu ko mu mu di ma sant ne ma nii nga def noonu la ndax am na ñoo xam ne boo leen wuñ la wuyu dañ def li nangam nangam parce que ma ne ko sëñ bi defal ndànk da nga jot ma rek waaye ñoo ñi ngay wax maa ngi ñoom soreewuñ ndax mbir yi ci jëmmi boppam moo dem ba ba toll foo xam ne day déborder xat moo tax day am diggante boo xam ne faaw day am nit koo xam ne moo lay wuyul su waxee kooka wax nga yow tontu ko am diggante boo xam ne yow ci sa jëmmi bopp yaa yor téléphone bi di wuyu te wax dëgg yàlla nit ki am na diggante bu mu woo yeneen loolu sax ci jaamu yàlla yi la bokk waaye am na yeneen i jaamu yàlla nag ci biir diine ji yoo xam ne aajowoo na ko am na ay gëstu yu mu war a def ci biir xam-xamam ndax nit ki binduñu ko rek mu toog di wuy téléphone am na itam yeneen i yëf yoo xam ne yu mu war a def la digganteem ak njabootam ak diggante yeneen doomu aadama yi ci des nga xam ne ñoo teew fa mu nekk kon yu mel noonu lu mat a bàyyi xel la su fekkee nit ki am na ci loolu benn luy nuroo lu bokkut ak nam daan doxale ñi xam ne mbir mi moo dem ba àgg foofa ak jéggle akuk rafet njort sa mbokkum jullit mën cee am beneen bi ci tegu moo di portable bi ki ko yor am na ay jamono yoo xam ne bu ca nekkee daf ko war a fay wala bu ko fayut it mu noppiloo ko kuy dugg jàkka waroo bàyyi sa portable muy sone ndaxte loolu yàqal ñiy julli ma nga ca biir dagg seenu ragal yàlla ak seen teewlu gañ doon def ma nga ca te loolu la chaque ne bàkkaar la saa boo xamee dugg na ci jàkka ji ba dugg ci julli gi fàtte koo fay su sonee na gaaw fay ko na gaaw fay ko walla mu gaaw noppiloo ko te xam ne loola jotewut ak julli gi dara ñu ci bari dañoo defe ne su yëngoo sax fay ko amaana loolu mën naa yàq julleem wala yu mel noonu mu bàyyi ko rek mu continuer di sone léeg-léeg sonnerie bi musique lay doon boo xam ne ci biir jàkka maar détail yi nekk ci biir julli di ko dégg lu ñaaw ñaaw la lu xeeboo xeebu la juróomeel di wattandikoo jëfandikoo sonnerie yi nga xam ne dafay nekk musique wala mu doon ak nodd wala mu doon njàngum alxuraan ndax njàngum alxuraan mi ak nodd gi néewal wormaa ngi ci ndax jël lu toll ne wax borom bi tabaraka wa taala lu toll ne turu yàlla wu toll ne nodd nga def ko yow mu doon sa wuyukaay loolu tuutal koo ngi ci la ko tax a jóg gën naa rëy loolu beneen bi ci des mooy dog gi nga koy dog néew na ku jël ayab alxuraan toog muy sone nga xaar ko ba mu jàng ba daaneel nga door a wuyu wala mu tàmbali nodd nga xaar ba nodd ga daanu nga door a wuyu te dagg nodd gi ak dagg aayab alxuraan bi du ci nekk bàkkaar a ngi ci biir te li tax loolu mat a bàyyi xelit mooy ki jëfandikoo wàllu musique bi ku doyadi lay doon ci kanam boroom xel ya ñu am xel ak diine su sa téléphone fëggee di musique fañ la tegoon dana wàcc kon loolu yu mat a wattandikul def ko musique mat naa wattu te it léeg-léeg sax alxuraan ji wala tudd yàlla gi nga xam ne mooy nodd gi léeg-léeg nit ki nekk ci bërëb boo xam ne kenn waru faa tudd yàlla faf kenn waru faa tudd yàlla lu mel ne wanag wa maanaam duus ba jékki-jékki ñu yëkkati alxuraan di jàng wala yëkkati ak nodd te fekk ma nga ca biir duus ba loolu maar day taali jullit bi daf ko war a wattandiku kon seet yeneen wuyukaay yeneen sonewukaay yu bokkul ak alxuraan bokkul ak nodd bokkul ak misik loolu mooy lu jaadu ci ci jullit bi juróom-benneel ba <coughs> mooy wattandikoo nekk ci jataayu xam-xam wala jataayu kilifa ba noppi bàyyi sa portable muy sone loolu bokkul ci teggin bi ndax loolu dafay doyadal jataay bi nga toog day day day couper njariñ li nga xam ne nit ñi toogoon ci jataayu xam-xam bi di jariñu moom lañ doon jariñ day lor sax ki doon joxe njariñ li ci boppam ki doon jox nit ñi njariñ li ba mu yàgg am ci ku portaabalam am sone mu daal di génn di wuyu ci mbooloo mi wala mu waaxu jéggi nit ñi di waaxu di dem ci bitti yorub téléphone am di wuyu mel ne kuy def manifestation di wane ne personnalité la boo xam ne nit ñaa ngi koy woo yu mel noonu lu ma ta wattandiku la ci biir ci biir jataay boo xam ne jataayu xam-xam la wala jataay boo xam ne jataayu kilifa la te xam ngeen ne nit ki di nekk ci waxtaan bu doon waxtaanu aada nii rek sax déglu ko dafa bokk ci teggin waxumal nag bu fekkee ne waxtaanu diine la day jàngale yorub téere wala muy conférence wala muy waxal nit ñi lu leen amal njariñ déglu ko ci boppam ci ay teggin la bokk moo tax boroom xam-xam yi teggin yi bokk na ci li ñuy teggee nit ñi mooy bu nit di wax mu di ko déglu ëboo tamaam day wax ci kenn ci ñooñu nga xam ne boroomi teggin lañ tey boroom xam-xam yu mag sax mu ne wa taraahu yusgi lil xadiisi bi samcihi nee na da nga koy gis saa boo xamee ne kay waxtaan a ngay wax nee na da koy déglu akub noppam wa bi qalbihi nee jël xolam itam jox ko ko wa laallahu adra bihi nee na te léeg-léeg kookee di wax la muy wax moo ko ko gën a xam fuuf waaye téewul ma ngi ko jox nopp ba ak xol ba du faale leneen kon teggin yu mel noonu yu mat dund dundalaat la ci biir jotaayu jullit yi bis na ko tey bokk na ci teggin yooyu wattandiku photo lu xaraam ci téléphone portable yooyu wala beneen jumtuwaay photo bu mën a doon sax nag rawatina ci xew yi dangay gis nit ñi jàppe ko lu woyof jigéen ñoo xam ne yañ sol baaxut nit yor portable am rek di topp di topp loolu la chaque lu xaraam la la chaque itam lu mën a indi ay sabab la ci xotti orma yi ay doomi aadama ak sax tas ay kër mën na ko mën naa feeñal ñaawteef itam ci biir jullit yi kon loolu jullit bi war na ko wattu rawatina nag su fekkee ne photo yooyu muy photo bu fa jógee daf koy tasaare léeg-léeg nga jékki-jékki gis nit gis photoom ci boo xam ne du xam kañ lañ ko photo woon ndekete boroomu portable moo ko photo rawatina su fekkee ne ñu sàggan ñi nga xam ne dañuy fooye ay photo di ci def ay montage ñoo ca dugg wala ñu dugal ci seen loxo yooyu yëpp la chaque ne ay lor la kon jigéen ñi war nañu bàyyi xel seen bopp bu baax a baax ci lu mel noonu suñ da dem ci ay xew ñu nekk ànd ak sutura sol seen col yañ war a sol mel nañ war a mel te wattandikoo nangu képp ku yor portable wala leneen mu di leen photo bokk na ci yooyu juróom-ñetteel bi sàmmonteeg teggii ni message yi nga xam ne dañ koy yónnente muy ay leetar yoo xam ne dañ koy bindante ci téléphone boobu ndax koo xam ne da ngaa bëgg a yónnee ab leetar war ngaa góorgóorlu ba lettre boobu doon boo xam ne day làmboo muy bégal nit ki wala mu di ko dalal xelam wala mu di ko jàngal diine wala mu di ko waar waaye nag jëfandikoo yoo xam ne ay caaxaan yi kese la ci ay leetar wala yoo xam ne ay mbëggeel yuy dox diggante jigéen la ak ay góori jàmbur loolu la shakka ne lu shariatul islam xaraamal la nekk noonu bépp expression boo xam ne nit a nga koy bind boo xam ne day làmboo xas nit wala saaga ko wala wax wax ju ñaaw ci moom la shakk ne loolu lépp lu sharia di xaraamal la te dafa dul dëppoo mukk ak sant xéewal googu nga xam ne moom la la borom bi tabaraka wa taala defal ci xéewaluk téléphone boobu rawatina yombal ko ba góor ak jigéen ak mag ak ndaw ñëpp kenn ku nekk koo seen daanaka ma ngi ko yor kon kooku xéewal la koo xam ne sant ko war naa sore lool ak nit ki di ko jëfandikoo ci loo xam ne mooy yàlla la bokk na ci yooyu wattandikoo xool leetar yi nekk ci biir portable yi jàmbur koo xam ne jàmbur la ci yow nga di ko xool ndax loolu wuññi sutura la loolu ak xaaraan la yu fi jàmbur loolu wor la jullit bi war na ko wattandiku te bunt la boo xam ne day ubbi bunti ñaaw njort ndax kat mën ngaa xool portable bu jàmbur gis ca leetar boo xam ne na ko firee yow loola tax ko woon a jóg ndax boroom mën na koo yónnee jigéen ci misaal nga jàpp ni kii kat moom ndekete day kaf ak jigéen ñi di leen yónnee ay leetar te fekk kooku boo demee soxnaam la ko yónnee ñaaw njort daal di judd ci bunt boo xam ne bu mu warte juddoo la leetar bi mën naa doon bu tàbbi si sax ci portable am te moom yëgu ko seetagu ko leetar bi léeg-léeg mën naa yor wax ju ñaaw léeg-léeg sax mën naa yor ab photo photo boo xam ne bu ñaaw la wala bu rafle te borom portable bi yëgu ko am na ci ñu yor ay portable yoo xam ne ni ñuy xoolee leetar bu sax xamuñu ko foofu dañoo yor rek seenu portable nga dékk wu ñuy xool fekk ca loolu ne ah kii moom ndeke day denc lii ci ay portable ñaaw jort daal di juddu sa diggante ak kooka nga tàmbali di wax ci moom wax joo xam ne du noonu léegi léeg nga gis ñoo xam ne it lay tax lu mel noonu di leen mën a dal mooy seen portable dañ koy wàcc rek mën naa dugg ci loxob ku ne mën naa tàbbi ci loxob nit mu yónnee ci leetar yu mel noonu nga ñëw xool ko gis ko defe ne moom la te fekk keneen la kon yooyu yëpp ay musiba la yoo xam ne su ko nit ki bàyyiwul xel këram mën na cee tas wala digganteem ak nit mën na cee yàqoo te fekk ñàkk a rek moo ko waral am na waxtu yu bari nag yoo xam ne nit ki war naa góorgóorlu ba du ca téléphoné kenn yooyu bokk na ci waxtu wi ñu tudde waxtu xëyluu la mooy waxtu noppalu jullit bi sunna la ci moom lu baax la ci moom su defee ay coonaam ba julli tisbaar ba añ ba noppi diggante takkusaan ak tisbaar mu noppalu foofu ab diggante kon dana jaaru ci nit kay woote mu xool diggante tisbaar sooy ba ñu ne diggante tis trois heures ba quatre heures wala trois heures ba quatre heures demi nit ki di ko di woote foofu lu dul ci mbir moo xam ne lu munta ñàkk la lu dul ci mbir moo xam ne lu munta ñàkk la beneen bi mooy waxtu julli xam ngeen ne mën nañ ne ku nekk bitim réew mën naa bañ a teewlu waxtu julli yi nekk fi nun nun waaye nag nun ñi bokk nekk ci beru mennub dëkk bokk nekk ci mennum réew waxtu julli yi xam nan ko xam nan ko kon jamono yi nuy bëgg a woo nit ki nan xool ba xam lii waxtu julli laam am déet léeg-léeg da teg sa portable di julli boo noppi la nga cay fekk ci ay woote sàllaw fi mu ne portaabal bee ci waxtu julli ajjuma wii bu noppi woon ba xool la nga cay fekk ci ay ay ay woote yoo xam ne yenn yi sax ci cabine lay doon daf lay jaaxal te jullit bi nekk ci waxtu woowu mu wóor ko ne moom waxtu jullee ngi ci jàkka la ko waroon a fekk moom su ko ci fekkatul it mu jàpp ne kii muy woo bokk xanaa moom julli la mu bàyyi ko ba waxtu julli bi weesu mu door koo woo ñetteel bi mooy waxtu guddi léeg-léeg am na ñoo xam ne dañuy jekki ba minuit weesu ñi woote te la ñuy woote du doon farata joo xam ne ju mënta xaar ba ëllëg la su ko defee lu mel noonu it lor la joo xam ne lor mën na cee juddoo bokk na ci waxtu yi mat a wattandikoo mooy jamono yi nit ki di conduire dara moo xam oto la moo xam sareet la moo xam leneen wala mu nekk ci mobilette walla lu nuroog moom ndax xel mënta jàpp yaar nekk ci lii di ko def ba noppi di wuyu lale lu bari ci ay accident yuy xew ak i musiba ak i jafe-jafe yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy am ci seenu yoon lu mel noonu moo koy moo koy jur bëgg sam xel jàpp yaar te xel mënta jàpp yaar bokk na ci yooyu mooy jamono yoo xam ne yaa ngi seeti ku wopp dugg ci biir hôpital ba bàyyi sa portable muy sone ngay wuyu di wax ca kaw ñu feebar ñi wër la kooku bokkul ci teggin yooyu su ko defee diggante boobu fay sa portaabal ba ba ngay génn béréb boobu door a wuyu mooy li jaaru ci yow yàlla nañu borom bi tabaraka wa taala defal ay teggin yàlla nañu wërsëgale dégg suñu diine yàlla nañu wërsëgale nu jàpp ci bu baax a baax a baax ak yaatu diine ji mu yaatu yaatoog ay gëstuwam ak lépp loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi koy dund ñu xam ne diine islaam bàyyiwu ci dara lépp làmboo na ko kon jullit bi ngir mu mën a am fiq ci diineem lépp loo xam ne mu nga ciy yëngu jaadu na mu gëstu ba xam fan la tollu diine rawatina nan la ciy jariñoo mu mën caa jariñu surtout sunu jamono ji nga xam ne noo ngi koy dund nga xam ne jumtuwaay yi ñu yor du jeex li nu borom bi tabaraka wa taala defal ci ay xéewal ak i yombal defalu ko woon ñi jiitu woon danoo war a sant xéewalu sunu borom tabaraka wa taala loo xam ne ñu jiitu woon santuñu ko waaye su fekkee dañoo wëlbatiku nag xéewal yooyu ñu def ko ay mayukaayu yàlla ay caaxaanukaay ay fowukaay su boobaa danañ dajeeg sunu borom tabaraka wa taala ñàkk aw lay wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa ajmain wa